almuqafa almuqtafi daañu waxit almuqafi yooyu ñoom dañoo tëggoo tëgguk ismul fail almuqafa rek moo tëggoo tëgguk ismul mafool waaye ñoom ñëpp ñoo bokk lu ñuy tegtale yonante bi rek lañ digal ne ko awal ci tànki ñala jiitu woon mel ne ni ko waxee ne ko an ittabi millata ibrahima xanifan yonente bi moo jëkk ci zahir waaye nag moo mujj feeñ ci baatin ñu ne ko awal ci tànk yi ñala la jiitu woon xàllal la fu aw rekk nag mooy yoon wa jaami yàlla yi war a topp ci yow roy ci yow moo tax saraay dañuy wax naa baat yooyu yépp bu ci nekk rek man nga ne ci boko de dee firi attabiu li gayri fa huwa qad tabia al anbiya qablu fi hadihim wa sananihim sanan aw yon lay firi wa jaa آخرهم وعلى آثارهم فهو خاتمهم وفي ذلك من تشريفه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قد اطلع على أحوالهم وسرائرهم فاختار الله له من كل شيء أحسنه وكان في قصصهم له ولأمته عبر وفوائد من لما يالا دفل منو مكو سنت نمو وره motax ma fas ko yene dolé sant ci kaw sax ci lamuma tanal ci walu pas pas ci walu wax ci walu jëf ci walu ada and nak ak saxo liggéeyal gën ji mindeef saxo ki may saxo liggéeyal gën ji mindeef bu ci jublo sant yalla ci li mu ma defal ko caa sant na cant ga ware ma bëgg sax nag ci liggéey boobu saxit ci lépp lu ma taamul ci wàllu pas-pas wàllu wax wàllu jëf wàllu aada xarful kaafi lii mooy arafu kaaf katabtu bind wa kulli te sama lépp faaraqa teqalikoo naag ak damba bakkaar والشرك أكو بوكالي واشترى تفك نمو جند قبل جبو جك ربي سما بروم الذي لب لو خمني بيعطفه جايون ناكو تركن تك باي بندنا نه كلامي سما وخ ونياتي أك سما ييني وفعلي أك سما جف توجهت جبل نانيو تقبل نانيو إلى من جيمشي كيغا خميني كفاني فغل نما asua lépp lu bon wa durra ak jëpp lor wa durra wa ak sikki sàkka mu ne lii may wax te di ko bind daa fekk saa baaxe ma tàggale ma ak lépp luy xeetu bakkaar ak lépp luy nuroog xeetu bokkaaleel yàlla dara lu mu tuuti tuuti te fekk it lépp lu ma jaayante woon ak sa borom ci bàyyi ko matale naa bàyyi ga ba yàlla xam ne matale naa la ma jaayante woon ak moom mu sax rek nag ci di ma sotti ga muy pay ga moo tax nag bind lii ngir sant ne yàlla mi nga xamee ne moo fegal lépp lu bon fegal ma lépp luy xeetu lor fegal ma lépp luy xeetu sikki sàkkaak jeexi jaaxaak lu koy nuru yàlla moomu samay wax ak samay jëf ak sama yéene ci moom rek rek lay jëm bés jëm sax ci ku may moom waaye damay dolliku rekk di jëmale sama lépp lépp muy wax muy yéene muy jëf ci moom yàlla mi ma defal loolu kafaani fegal na ma xafiidun aji watoo maanixun ku di aji fekk jumlatal xidaa mboolem noon ya waqaada te moomat lii jëm ci man ah baaban ay soppe ubhiru nuñ danaa feeñale bihim ci ñoom anuska jaamu yàlla ga yàlla mi nga xamee ne moo mën a wattoo moo mën a fegal ku ko soob moo ma wattu fegal ma mboolem noon yi boole ak ay soppe yoo xam ne li ma bëgg ci lu baax ñoom laay àndal di def ñépp di ko gis katabtu bind naa waxas di ci sama jublu syukur rabbi mooy sant sama boroom muxaatiban ngir mu may aji wàqanteeg li ma ñeel kii nga xam ne ak sopam sah sah soril na ab banka lépp luy xeetu xat-xat an kalkali wali sama xol li ma karumta tedd nga wa fuqta te nga kawe alkulla ya khayra mursalin yow ngeen ñu yoni alayka yalla na dole nek ci yow salatun doli teranga tibuha ko xamne keutum akhjala rusulona al miska misk mune ma ngi bind li may bind te moy tambale ci kawum ta wuqtal kulla te sant rek tax ma diko bind ak diko wax kon mangi bind li ngir sant rek tey waxanteeg ki nga xamne gi ko sopp sama xol tàggoog li nuru xat-xat maa bind di waxante kooku naa ko yow day ya tedd ya fete kaw ñepp ñepp yow gën ku yàlla ba sa yoni maa lay ñaanal yalla doli la teraanga nga jo xamne bu doon lu ñi wax ni da am xet nga xamne kon xetam day neex neex ba li ñi wax misk ka shafta wuññ nga maanaam nga adduja ya hanna walis nun wa arshattana te nga jubal nu maxan boole sunu maanaam nun ñëpp xaleyka yàlla na doole nekk ci yow salaamun jàmm xarfafoo coj xetam nga yes dër yi dana xeeb albunka bunku albunku xeetu gëtt la woon boo xam ni arab yi xamoon nañu ko lool lool li mu ne moom lay bind ngir jublu sant rek te di ci ak ngeen ji bindeef mu karum karumta wa fuqatal kulla ci lu wéy nag ci kashafta du jaaxan naa ne ko yow day yaanu dàqal lëndëm andil nu leer nu ñépp nga jubal nu wannu yoon wa kon nak yalla sa borom yal na la sa dollil dolil jamm jo xamne buñ ko doon misale jëmm ju am xet xetam day neex neex barusloo bunk fekk bunk nak niñ ko waxe gëttale won guñu xamona xam ci ñoom arab yi koro biya samay njàqare ya miftahu yow ubbikat bi mel yow caabi bi jalaw taxaa wuñ nga leen muri nga leen xànni walis wa sax saxta nga soril qablu ca bu jëkk alxidaa noon ya. wal jëhla ak réer wal ifka ak yow mi yàlla def nga di ak jaabeem samay tiis ak samay njàqar yépp yaa ma ko dàqal mu sori te sax mën naa ne ci njëkk lii nga ma dàqaloon mboolem noon ya dàqal ma lépp luy xeetu réer dàqal ma lépp lu wuute ak dëgg kasawta wodd nga melni nga ne sang nga kama atahamta ni nga lele dal hori borom rafle ga jaihan bi mu bi aji xif wa khallasta te nga xetliko min kaflihi ci jengam ba ya khayra man yow ngeen ji ka nga xamé ne fakka xobina ab jeng wala dajina, ab jeng moy dindi rek dana yonante bi dama meloon ne ku boole xiif ak marak rafle ñu jégg ma boole ca ba mënuma jëm ci lañu ma taamul ma jëm ca nga daal di may tàggaleeg xiif ak marak rafle tàggale maag jéng boobee ba ma mën daal di waaxu rek jëm ci lañu ma taamul kashafta wuññ nga muri nga dujaa xal bi lëndëmi sama xol wa kulliite sama lépp xamaytaxoo aar nga ko bi xifzil lazi ci wattug yàlla mi nga xam ne ma mashtaka saa yu jàmbatee mushtakin ak jàmbat ashka mu fajal ko njàmbat la maanaam dindil ko njàmbat la shaka yashko ak ishtaka yashtaki ñoy firi jambat ñu ko defé ashkana bu teggo afxala muy firi faj jambat manam dindi jambat la mu ne yonante bi ci karangel yalla mi nga xamne kuko jambat te yaakaaru ku mom manala la fajal sa jambat ci karangem lolé ca nga ma aare yow nga ji mindeef da nga aar sama lépp lépp ba noppi muril ma mboolem xeeti lëndëm yi nekkoon ci sama xol ba sama lépp aaru sama xol deseetul dara ci lëndëm lépp dik leer ku oosu ka say kaas tasxii nii da nga ma nàndale bihaa ci ñoom da busharatin may borom mbékk waxutta te wombat nga lii jëm ci man faydan ak bëbb wala ak baawaan ax jala gog gàcceel na al bahra géej ga wal fulka ak gaal ga booy déglu li sëñ allah ji mbàkke doon dajale ci wax yi sëriñ bi da nga ci dégg fu mu firee moom bi way wii di ku oosu ko tasxii ni pirimu yéemoo yéemee waaye ci gàttal rek mënees naa wax ne sëñ bi dana yonante bi danga indi say kaas di ma xelil rekk may naan di dolli ko dolli gu mbégte nga ma may gu baawaan goo xam ne rusloona géej ak gaal ya cay dem ak dikk di jàllaañoo may nga ma andil rusloona géej ak gaal yooyu di ca dawa kedi kedi di kita buka sab dini diini mooy sama diine khili wa te moom xilli moy sama xarit wa mu'nisi te sama aji wetali hadani jubale nama bihi ci al hadi aji jubal ja wa zakkaate mu nafsi sama bakkan bihi ci mom wala yonante bi téré bi li yàlla jox nga andi ko te man muy sama xarit di sama wétal yàlla gindee ma ci téere bi yoonam wa gën a jub sellalal ma saa bakkan ci téere bi ba sell ci lépp loo xam ne ko ci man téere yàlla bii nga andi mu demee noonu man mooy sama diine ci lay tënku sama dara du ko génn diini kitaabul mustafa laa xayru kitaabun ab téere la karimun bu di aji tedd min karimin bu bàyyi koo ci aji tedd mu karrimin kuy aji terale ku fiitu fegaleef na ma bi ci moom al aada an ya wa damba ak bakkaar wa shirka akuk bokkaale mu ne alquran mii day téere bu tedd tedd bàyyi ko ci ku tedd kuy terale kam bàyyi mu tedd te terale mooy yàlla mu ne ci téere bi muy alxuraan ci la ma yàlla dàqale fegale mboolem noon ya tàggale maag lépp luy xeetu bakkaar ak lépp luy xeetu bokkaale kook dara lu mu tuuti tuuti xarful laami li mawlaya ñeel na sama borom hamdi sama kent wa huwa te fekk na moom maxa far na alkabla ba xanni walis ma wa qada te mu wommat lii jëm ci man faydan ak bubu wala bawanuk may ax gok gàcceel na ba ruslona al bahra géej wal wabla ak wame wa yalla mi nga xamene moma dindil lépp lu ma naroon a gàllankoor dox sama digganteeg la mu ma taamal yët ma it may guy baawaan goo xam ne na mu bare ak na mu baawaane rusloo na waame rusloo na géej yàlla moomu daal moom rek moo yeyoo sama cant kon maa ngi jéem sant ko kem sama kàttan te xam naa ne lu ma sant sant sama sasu cant booy lëxoo ñeel na ko alhamdu cant ga wa shukru ak ngërëm la allazi la nga xamee ne lantiha déet daytal lëxoo di ko ñeel huwa moom alwaaxidu mooy kenn ka almughni kay aju doylu loo ka nga xamee ne kattara baril na alqulla la néewoon mu ne yàlla mi kenn ku amul moroom di mën a may ab jaamam ba mu giijal mën a fekk lu néew mu baril ko te man mu baaxe ma lu ma néewle te bëgg koo barile mu barilal ma ko may maa may ba ma giijal yàlla moomu daal moom laay jëmale sama cant ak sama ngërëm cant ak ngërëm yoo xam ne amuñu fu ñuy yem loxoo ñeel na ko ak shukuru ngërëm la nit ñi tukkee ci man baxta xamdi ci gannaaw sama cant muqaatiban may aji wàqanteeg li man ñeel yonante bii nga xam ne jooduhoo tabam nga xaada womat na lii jëm ci man ma maa loo xam ne ax jala rusloona alxat la dotti ga alxat la ci alkubeer ak ñaari tomb neen mi su réewut ak alxat ci alkubeer ak taati daroo mu ne ci biir cant gi may cant saa boroom di ko gërëm maa ngi waxante ki nga xam ne li ma def lépp moom yàlla ci moom la jaare mu yonante bi nga xamee ne daa tabe tabe ba ay mayam rusloona waame yuy dottee ka dotti ay mayam rusloona waame yuy dotti maa ngi waxanteeg sang boobu nag ci biir cant gi may cant yàlla di ko gërëm Nako laka ñel na la asabqu raw ga wa taqdim ak jital ga ya khayra sayyidin yow ngeen ji ab sang la dal waaxidi fa kenn ka qahhar ka di ab kon rabbil wara kay buurub mbindee fi jalla magna yalla moy maye melni yonante bi moy lantinor ba ci la maye jaar di ñew ci serigne bi motax kon kena bim jitalé sant yalla di ko gërëm waxanté waxante bi nak di ko tagg ci lim am ci yalla te lepp jaaré ci mom dal diko ko ne yow yaay sang bi yalla tek fo xamné ne tegu fa kenn fala sa borom tek tegu fa keneen yow yaaraw faw jitu faw kenn mënu laa jotati te ñépp ci sa gannaaw rek lañuy ñuy mën a nekk ndax loolu lu yàlla dogal la laka ñeel na la al ilmu xam-xam ba wal amaalu ak jëfi yiw ya wal xayru ak yiw wa kulluhoo léppam alayka yàlla na doole nekk ci yow salaatullahi taralug yàlla yaa man yow mi nga xamee ne xalaa kawe na al asla cosaan la mu ne ko yow mi yàlla def nga féete kaw ñëpp say baay ak say maam ba ci yonante yi la jiitu woon sax yàlla defal la nga boole lépp luy xam-xam bu am njariñ ak jëf ji yóot lépp luy xeetu yiw nga xam ni xeetu yiw amul ci wenn wala yàlla defalut yow day maa ngi lay ñaanal yàlla di la saxoo dolli teraangaam jooje laka ñeel na la fadlu ganeel la ya muxtaaru yow ka ñu tànn yaa sayyidal wara yow sangub minde fi alayka yàlla na doole nekk ci yow salaamullahi jàmmi yàlla ya man yow mi nga xamee ne maxaa far abdulla toroxte la mu ne ko yow mi yàlla tànn taamu la def la ngay sangu mbindeef yépp may la luy ngëneel nga dox sun digënté luy nuru ak ñaka tekki faraw nu toroxte ci gàttal rek mooy dox sun digënté lépp luy nuru ak ñaka tekki mu ne ko yow day yow laay ñaanal yàlla dolli la jàmmam ji gën a sax ci xeeti jàmm yi ci féete ci kaw dafa waxan ci alayka salaatullahi yaa man mahal asla fii mu ne alayka salaamullahi Ya man Mahadullah, bëgg boole assalaatu assalaam la anta yow imaamu rusli yaay njiitul yonante xad jaa dikk na ne annahum naka ñoom talaa xaw ka tase nañoo yow fi israil ci rañaanal nga wal kullu te kenn ku ne ci ñoom xaddu sàlla julli na ci sa gannaaw mu ne ko yonante yépp dañu laa jiitu woon di xalal rek waaye yaay seen iliman yaa jëkk yaa mujj ci guddi ya gi la yàlla rañaane yéege la dalaa tasee leeg mboolem yonante yi nga jiite leen ñu julli ci sa gannaaw loola wane ne yaay seen iliman ñoom ñépp yaa jëkk yaa mujj labista woddoo nga sol nga malani tedd nga wal fadli ak gëneel wal hula ak kawe ya wa fiika te nekk na ci yow al akhlaq ci ay jikko maa loo xam ne ajasa lottal na al la ñëpp mu ko teranga ak ngëneel ak xeeti kawé ak daraja yi bu ñu doon ay malaan ma xam ne yaa sol yaa waaje malaan yooyee yow la yàlla jagleel xeeti jikko yu tedd tedd yoo xam ne dala koo jagleel kenn mënu la caa jege rawante na di la ca jot dañu lay jéem roy rek ndax yàlla digle ñu roy la laq yi ta tase ngaak minal aada ca noon ya maa loo xam ne dal la naa tegtal nanu maxan boole sunu xalaa an naka ci naka yow allay su yaay gaynde ga allasi ga nga xame ne la damm na xisbahum seenub kuréel mu ne ko na nga jàmmaarloog noon ya ak la ca xew ak fa nga jaar ak ñoom ci lañ xamee ne ca dëgg-dëgg yaay gaynde ga fàdd noon ya ñu daanu yàlla am la mbëggoon te mooy lislaamam yëkkatiku kéefar ak waa kéefar suulu Liman man ñeel na nga xamne ne jaa dikk na bu xii di sakku min ka ci yow naylan ak may huda ànd jup hatta ya bashirin may aji bégle tadd faxwe danañu jiñ faqra ñak wal mahla ak bekor liman man ñeel ka nga xamne qa xaa daxoo womat nako ko jëhlun lakum jëm ci yeen da tajarruin in boromuk koku da joju xadaabun mbugal shadidun gu di aji tar yu risu comme dana sabab mbaa dana joxe alfaqra ñàkk wal qatla akuk rey mu ne ko yàllaa la def ngay jëm joo xam ne ku jëm si ci yow te bëgg xam yoonu yàlla ba aw ci rekk a tax mu jóg mbaa bëgg lu am ci aw yiw ak lu baax bu agsee nga gindiko manale ko boromam ba noppi may ko ay may yo xamne ca lay jaar tagok ñak tagok bekor waye nak ku xamadi ku jëm ci ci yow and ko dëgër bop bu dikke fekk fi mbugal mu tiis ku xamadi ku li dal bu joge ba jëm ci ci yow dal di gis rek mbugal mu metti metti benn buñ ko waree rey ñu rey ko mu ñàkk bakkanam mbaa boog bu jógee foofee du tàggooteeg ñàkk ak toroxte mukk mukk mukk di wéy rek ab xii danaa sàkku lakka ñeel la ak dëxra ci jékk jamono min ilaahi tukkee ci sama buur salaatahoo ak doli teralam alayka ci yow ma at taslimi and ak doli wolu ya man yow mi nga xamne ha farna al kabla jeng ba yow ma tagale lepp luma galan kor te ma mana jëm ci lañu ma tamal ma ngi lay sakul ci yalla sa borom mu lay saxo doli teranga dila saxo doli ngeen ji jamm harful haini lima arfu hayni àllallaahi ci yàlla rekk man yàlla mi nga xam ne xaada womat na lii jëm ci man bil Mustafa ci daraje ka ñu tànn asharha yoon wa ci yàlla rekk tawakkaltu laa wakiirlu xabdan may ab jaam kooku xaal la xaadiman buy ab liggéeykatu yonant laa araaduma gis sarxan benn pakk wala sarxan ak nermel doone masarum saraha yasrahu sarahan mune yalla mi nga xamé né mo fab yoon yonante bi tek sama loxo ne ma yaay ñi yonante bi ya ko wotu te lepp kat bi ngi mako ko defale ci daraaje yonante bi ci yalla mom rek lay wakirlu lay yalfando lay doon dëgg-dëggi jaamam doon dëgg-dëggi liggéeykatu ngën ji mbindeefam yi te xam naa lu yàgg-yàgg benn pakk mënuma fakkastal ba teema àgg faa jëm kenn kuy nërmeele mbaa lenn luy nërmeele it mënuma nërmeel i'tima ji suma sukkandiku alayhi nekk na ci moom mbaa nga ne alayhi nekk na ci moom yàlla rek iqtimadi sama sukkandiku radiyan bir may aji an walis ko raadiyan xaal la aji li xab di ñeel ab jaam asra bab na bii ci mom wa jaawasa te jéggi won na asabaxa juróom yaari asamaan dafa doole fedd degeural lu waxon ci wakirlu ci yalla mu ne ci yalla mom dong lay sukkandiku di ko gërëm lool fas yéenee sax ci liggéeyal jaamam bi nga xam ne da ko fonka fonk ba ràññaanaloon ko mu ñëw baytul maqadis mu yéegi ko mu jéggi juróom yaari asamaan yi mu déey ko lam ko fa déey te jota nanu waxtaane rañaan nga na mu demee ci waxinu gàtt wu yomba dégg boo delloo ca jazbul xulóob kon nee na mi ngi dollee sukkandiku yàlla kese te di ko gërëm te sax ci liggéeyal jaamam bi nga xam ne moom la fonkoon fonk ba defal ko rañaane googe ak yéege googe alal Moustapha yal na nekk ci kañ tànn xayril baraaya kay ngën ji midee fii muhammadin te moo di muhammad salaatul lazi teraluk yàlla mi nga xamee ne xaada womat na lii ñeel ma maa loo xam ne xallada béelal na mbaa saxal na faaw al wusa katan nga ne yalla mi may may go xamne ne du jeex may ma ak man go xamne ne mëna dekkou lepp lu mayam yalla momu lay ñaan rek muy dool teranga ngeen jimi def mi ji muhammad alayka yalla na loolee nek ci yow salatu taralug yàlla ya khayra mu ci taban yow ngeen ñu tan bi taslimi si ànd akuk dolli wóoloom yaa man yow mi nga xamee ne hada jubal na al asla cosaan la wal farax ak bàngaas ba dafa dellu foofu di yeesal wàqanteeg ngën ci mbindéef ne ko yow mi yàlla may nga gindi bàyyaat maam ya gindi doom yeeg sët yi yàlla tànn la nga gënal ko ñëpp ñëpp maa ngi lay ñaanal yàlla di la dolli teraangaam ak jàmmam ko yàlla na dollee nekk ci yow salaamaaman teral ak jàmmi yàlla mi nga xamee ne lu xoo ñeel na al amru mbir ma kulluhoo léppam kama qaada naka mu womate bi ka ci sa daraja li jëm ci man masiyati ngëneel ya war rujuha ak dellu mu ne ko yàlla mi ma may ci sa daraja xeeti ngëneel yu ab may ma ma delluwaat ca faa bëgg a dellu yàlla moomu nga xam ne itam moo moom mbindeef fi moo moom seeni mbir lu ko ci neex lay def yàlla moomu yaay dool lay ñaan mu lay saxoo dolli teranga ak jàmm aleykum yàlla ci yéen salaatun doli teral ma salamin andak doli wolu bi hisbikum andak seenu kurel min al waasixi bayiko ci yalla mi aji womal al baqi ki aji dess allazi mi nga xamene khallada na manam saxalal na ma arratha for ci naataange mune ko yalla mi dul jeex amul fu mu yem dara dara te may mayit naataange loo xam ne amul fu muy yem damay sëgg di for rek di wéy lu ma bëgg rek for waaye amul fu muy yem yàlla moomu lay ñaan yow ngeen ji mbindeef mu saxoo laa dolli teraanga ak jàmm yaag sa kuréel yaag sa mbooloo ñi aju ci yow xalawta kawe nga iatilaan ak kawe laa yu ka du rawanteeg yow xëyru man dare koo xam lëxu ñeel na ko shiqwatun ak texee di xaddu too jib gog baraana mu waral allaana rëbb ga wa daxa ak bëmëx ga daxa ya doxu mu ne ko daa yàlla sa boroom mu teg la ca kaw li kaw teg la foo xam ne ku jóg di la sóoru bëgg laa def moroom it tey ku texee dee texee di di yàlla rëbboo rëbbu mu jëm rek sawara xiyaad samag muslu mbaa samag wéeru bi man nekk na ci yàlla mi nga xam ne alaaka kawel na la xabdan mbir mu koy ab jaam wa sayidan te ab sang xarilan te ab xarit xabiban te ab soppe xaada bopp wommat na lii ñeel ma dikk raxoo alxuraanam ji xat ci lu dog mu ne yonante bi yàlla mi nga xamee ne moo ma jox alxuraan ci tedd ji mu jaare ci yow mu def la yow nag nga nekk ca kaw li kaw tiim ñëpp di ab jaamam di xaritam di soppeem di sangub ay jaamam ñëpp ñëpp ci yàlla moom dong day laay wéeru ci moom rekk it laay làqu duma xol leneen duma geesu leneen hatta yahu ay mayam fi barin ci jéeri wa bahrin ak géej daqoo duni danañu ma womat ila shukri jëm ci ak santam mudd tayyaba rub teyal na an nafsa bakkan ba wal marha ak farukaay ba mu ne yàlla sa borom moomu nga xam ne dama teeyalal sama bakkan teelal ma sama forukaay ba nga xam ne fa laay fore ay yiw ak i ngëneel fu ma man di nekk itam mu dima sotti ay may moo xam maa ngi ci suuf si moo xam maa ngi ci ndox mi ne ko sa borom boobu kat mënuma koo ñàkk sant ndax ku defal lii defal la bakkan bu teey defal la forukaay boo xam ne da ngay sëgg di for rek yiwe ki ngëneel te du jeex fo toll mu lay sotti ay may bo nekké ci geej ak bo nekké ci jéeri nako sa borom bobu bu ma ko ñak sant te cant gi ci yow lay jaare ndax lepp ci yow la ko jaarale ay kimtanam badat feñ nañu fil barri ci jéeri ci wal bahri ak geeg li ma di kaw ni ko ci sag di ko may liggéeyal ci waxin walaf di kuñ liggéeyal sama waaye rek moy ka may liggéeyal ba aw sala te bu agale an na fa njariñ la li jëm ci man man yoonte bi doon gi ma doon sab kat taxna fu ma tollu muy ci suuf si muy ci ndox mi yàlla di ma wan ay kiimtaanam yu yéeme yéeme di àggale ci man njariñ lu ne doon gi ma doon sab liggéeykat tax na foo ma di nekk rek muy ci ndox mi muy ci suuf si yàlla di ma wan ay kiimtaanam yi nekk ci ndox meeg suuf si di ma ak di ma jëmale ay xeeti njariñ uloomi sama xam-xami bitti waa irfaani ak sama xamuk biir wa sa'yi ak sama jëf zakiyatun way sell lañu li man ñeel yàlla mi nga xam ne xaada womat na bi kaj sa daraja li jëm ci man ak tawalifa xeeti taalif ya wa sharax ak yoon wa mu ne yonante bi ci sa daraja la ma yàlla joxe mboolem xeeti wirdi yi nga xam ne ñoo ma jiitu woon ak xeet taalif yi nga xam ne ña fi nekkoon jiitu ñoo ko taalifoon ak shariha ci boppam gannaaw ba ma joxee nag alquran ak hadis kon ci sa daraja dama yàlla joxe alquran ak hadis jox ma xeeti wirdi yi jox ma xeeti taalif yi def ma may sa wuutaat di wutatu borom wirdi di wutatu ña talifon talif yoyé yalla nak dal may defal sama lepp sel lol mel nam bëgg muy sama xam-xamu biir ak biti muy sama jëf lepp rek yalla defal mako muy lu sel sell sel nam ko bëgge lepp ci sa daraja limu ne gannaaw bu ko yalla joxé alquran ak hadith da ko jox wirdi yeek talif yépp bu dee wirdi yi mu di ko joxe wut ko daan joxe bu dee yi mu di ko to di ko jang ka jangale lolou boko ko xol ci majj ha bi suñu abdulahat mbàkke bolé won da ko yàlla dool ngeureum ak leer yi meena ko rek majj moo ha ak amul aw turu man nga xol ci xatu ak ñeen fukk ak juróom sëriñ bi wax na fa ne mbindeef yépp nañu maase ci xam ne gannaaw bi ma yàlla joxe alquran ak addis ak mboolem xeeti xam-xam yi am njariñ damaa joxit wirdu xaadir ak saatiliyeeg wu ne ma naa leen di joxe wuutu ñañ joxoon wird yooyu ñu ko joxee nañ ko daan joxe jox ma it mboolem xeeti taalif yi ña jiitu taalifoon ne mën naa leen di saytu ci jàng ak jàngale te mu ne bu dee wird yi ñañ joxoon wird ya ñoo ñëw jox ko ko bu dee taalif yi ña taalifoon téere ya ñoo ñëw jox ko ko ci ndigalul yàlla borom bi بعد يا nga tàmbalee تعليم فليعلم ولينتبه جميع العالمين على أن الله تبارك وتعالى أعطى عبده خليله حبيبه وخديم رسوله وخليله وحبيبه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبارك الوردة القادرية والوردة السادلية والوردة التيجانية بعد القرآن والحديث وجميع العلوم النافعة تعلما وتعليما بواسطة أرباب الأوراد الثلاثة عليهم رضوان الله تعالى وبواسطة المؤلفين عليهم الرضوان والرحمة وأذن له في إعطاء جميع الأوراد وفي تعليم جميع التواليف والله على ما نقول وكيل تك سبحان ربك نمكران دانيله حنا إيسا samab ma farangako far nga ko bi maxwillahi ci fargu yàlla xan walisma wa safa te sellal xayaati sama dund man yàlla mi nga xamee ne kafa fekk na sarxan pakk mbaa sarxan nërmeelu li di jëm ci kudul man ba tey mi ngi waxante ngeen ji mbindeef ne ko yàlla mi nga xamee ne mooma sellalal sama dund ci sa daraja toppaleel ma lépp luy pakk ci sama yoon ba amut lu ma mën a fakkatal rawante na lu may normeel dara nekkul ci sama yoon mu ne ko yàlla moomu day ba mu naree far samay coono ci yow la ko jaarale nga daal di may faral samay coono lépp ci kàttanuk yàlla boroom bi allahumma yow buur bi yaa haadi yow aji jubal ji yaa kariimu yow aji tedd ji yaa salaamu yow ki mucc ci ayub yaa shakooru yow ki ab santaakon salli wa sallim wa barik ala sayidina wa mawlana muhammad almahdiyi kadi kuñ jubal almukarrami kadi kuñ teral almusallami kadi kuñ musal almashkoori kadi kuñ sant wa alihi ak ci ñoñam wa saxabi ak ay saxaabaam salatan doli teral wa salaman ak doli wolu wa barakatan ak doli barke ya obitu hoye dana ko ñe fiha ci ñoom ghayruhu kudul mom abadan faw xolal ni mu ande yent tur yalla yi al hadi al karim as salam ak namu ca tur yonante yi alhaadi yàlla mi aji jubal mu indi tur yonante bi almahdiyu ka yàlla jubal alkarimu yàlla ki aji tedd mu indi almukarramu ka yàlla teral assalaamu yàlla mucc ci ayub mu andi almusallamu yonante bi yàlla musal ashakuru yalla ki ab sante kat mu andi tu bi al mashkuru kañu sant tek nak salli wa salli mubarak ne yalla dol teranga ak jam ak barke yonante bi nga xamne ya ko jubal teral ko musal ko sant ko doliko teranga ak jam ak barke yo xamne kudul mom rek da nga ko ca ñe ta bëgg yalla reeyal xóotal màggal teraanga ja ak jàmm ja barke ba ba yonante bi ñu koy féetale ak ay gaayam lépp leen cay ñee xarful laami lii mooy arafu laam li rabbil baraaya jëm ci buurub mbindeef yi waxdaxoo moom rek naxaa la jublu kulli sama lépp bi Andat la nga xamne kolinya tanef nako li ñal ma min xayr yi moo ci lu jenn aji lor wala kallin du ciageenu ben gangal manam du dara lu dis mune sama lepp lepp dafa deggal yalla rek te kat la yalla bëgg tan ko xam ci walu pas-pas la moo ci wàllu wax mbaa ci jëf mbaa ci jikko mbaa ci aada loola rek laa dëgmale yàlla dëgmal ko na mu bëggee sama lépp dëgmal ko te yàlla nag musal ci lépp luy lor musal ma ci lu diis loo xam ne mën na ma gàllankoor Lisani sama lamenu wa ak sama xalima wa qalbi ak sama xol wa jussati ak sama jëm li mu ko nit ñel na aju doyluloo karimin ci di aji tedd naa fexen ku di aji jariñe jall ko magna na ana kook am miskin walis morom da ngay wax way da fedd li wé da nga ndako dolé léral ndax dan yàlla mi jeexliwul dara mana may ab jam ba mu gijal yalla mi tedd te mana terale yalla mi am jariñ te mom rek mana jariñe di kenn ko amul marom, yalla mom sama lepp lepp ci mom rek lay jëm muy sama lamiñ muy sama khalima muy sama xol muy sama lepp jëm arsala yabalna lana ci al muhtara kañu tan abdan mbir mu di ab jam muqaddaman bu di buñ jiital xalilan mu di ab kharit habiban tay ab soppe fa'iqan bu di aji kawe jumla ta tamli mboolem tanefiya ya mu ne yàlla ci coobareem lay jëfee da ko soob nak mu tan yonante wi jital ko muy xaritam di soppeem mu teg ko ci kaw ñëpp ñëpp mu feete kaw ñëpp ñëpp ñëpp féete ko suuf mu def ko nag